walmu mu ko bes ko xamne ne tab directement mu nek ci li nga xamne département des sports la mhm. donc loolu yëpp réaménagement kese la euh, ñu japp ni nak euh, loolu effectivement c'est tout à fait normal mhm. parce que tamit euh, pax boobu ñaar ñooñu baax faw ñu faw ñu fàttu ko te fàttu ko du leen lu dul euh, tabb ay ay nit yu bees euh, ñu daal di compléter li nga xam ne moo moo jëm si ñaari départ yooyu mais l'un dans l'autre lu si mënti am rek mooy ñu ñaar ñi dem ñëpp xam nañu lu tax ñu dem parce que itam bu dee dañuy dem dañuy dem fekki ki nga xam ne moo di seen mentor seen mentor bi nga xam ne moom si wàllu boppam wax nga ko jóge na si li nga xam ne moo di euh, poste président conseil économique social et environnemental yaa ngi Il a dañ ko laaj lenge yi mu delloo ko mm. ñaar yooyu yoo am mm-hmm. parce que moom itam il fait de la communication politique euh, jiital na li nga xam ne moo di euh, surtout président Macky Sall bésum corté uh-huh. parce que si bëccëgu corté bi uh-huh. moom dafa ne wax naa ni président Macky Sall maa ngay dem uh-huh. waaye nag président Macky Sall si tàkku saanu corté bi wax na ni moom moo laaj Idriss Seck ne ko il faut mu subir conséquence bi nga xam ne mooy décider euh, nekk candidat donc bu si nekk rek da ngay gis ni c'est nous sommes dans le temps de la communication ah. politique donc réaménagement boobu bu dee foofu rek la ñuy tënkoogum def naa ni loolu rek lañu si mën a xaar ah. euh, fii la suba fii la gannaaw suba ah. amaana euh, premier ministre a annoncé effectivement ni euh, soppi nañu andi nañu ñu bees ñoo xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy remplacer ñaar ñooñu. amaana retour. Euh, de ñu ngi koy waxatee Malick Ba kii nu ko tudd euh, l'ancien ministre des sports.

loyauté euh, auprès du chef de parti euh, Réumi Idrissa Seck nous nañu nu le département ministériel nous avons fait un mentor lan la ñu mën a jàngatee loolu. waaw um, dañuy jàpp ni rek fidélité réitérée la à l'endroit de son mentor bi nga xam moo di Idrissa Seck. Mhm. parce que tamit Yankhoba Diattara dëgg la yàgg na si langue politique Sénégal. et on espère ah. que conséquences yi du doon euh, mu def volte-face parce que avant muy génn wala avant muy joxe lenge gi moom Yankhoba Diattara y a quand même des propos yu mu tenir comme quoi.

conseil départemental. Mm-hmm. Idriss Seck fait son entrisme dans la galaxie Benoïste euh, par rapport à la gestion du pouvoir effectivement moom Tan, Yanko Badiatara, Diattara euh, yobuko euh, propose quoi pour mu les ministre donc léppam daanaka Idriss Seck la mm-hmm. donc ça aurait été très difficile que yanko Badiatara bañ top euh, euh, li nga xam ne moo di par rapport à son choix mm-hmm. contrairement à Omar Gueye ak Pape Diouf mm-hmm. ak ñeneen ñi nga xam ne jamono jooju <laughs> euh, wa dañoo desoon si li nga xam moo di gouvernement président Macky Sall waaye nag fii xëy na nu mu nu mu demee mm. moo moo tax parce que itam bul fàtte ni jamono jooju c' était plus compliqué parce que 2012 ñoom ñoo l'eau 2013 un an la secrétaire Seck def gouvernement bi daal di quitté parce que 2013 la acté son divorce avec le camp du président Macky Sall ba atum 2020 bu muy dugaat euh, euh, si si si gouvernement bi euh, ak ay ministre moom ñu tabb ko président conseil social environnemental mais nag lu si mënti am il y a des conséquences mm-hmm. lu mu si mënti am il y a des conséquences mm-hmm. et il y aura forcément des conséquences et conséquences yi si wàllu boppam sax <laughs> ñu ngi koy tàmbalee gis à travers li nga xam

a véritablement dénaturé li nga xam de confiance bi nga xam mi koy xaar si Sénégalais. très bien parce que itam euh, y' a une euh, koy wax une succession d'erreurs dans la communication xam ndax yow bay nga ci xel. Euh, waaye nag euh, am na une succession <laughs> d'erreurs erreurs yoo xam ne amaana euh. sénégalais duñ ko ko baal. parce que quelque part il a véritablement. Euh, pris les Sénégalais ñu baal ma si kàddu gi pour pour des pour des demeurés. parce que bu waxee nii euh, dëkk boo xam ne ba ma lëkkaloo ak samay nit wax ko ba ma xëyee dama dafa senn ba ma gis ko dans la presque mu jàpp ni loolu c'est un esprit purement sénégalais te moom lu bari moo ko jàngal sénégalais si si mbir njuuj njaaj yooyu boo ñëwaatee fii mu ne pour doon président wu dëkk goo xam ne euh, population bi am na ñu comportement nu ñu mel Bassoum Korte wax na ko defe naa ni moom du leçon boobu euh, la ñuy jàpp ni moo koy moo koy jox Sénégal yi alors Bamba Sall yow sa jàngat bu njëkk ci euh, euh, li nga xam ne moo di dogal yu wadd yees muy conseil économique social environnementale di ab institution bu nga xam ne dénkoon nañu ko kii di Idrissa Seck ginnaaw ba mburoog soow bi juddoo léegi mburoog soow bi xëy na mën nañu ne am na lu mu rax Euh, soow mi am na lu ciy ñuul euh, wala ñen ñi jàpp nañ périmé na mburoog soow boobule wala varié na <laughs> alors aujourd'hui ca fa mu nekkoon ñu teg fa quelqu'un comme Abdoulaye Daouda Diallo yeneen ñaari ministre ya mu amoon également dem nañu fekki ko am nañu également euh, nu nu ko dénk muy le premier ministre en attendant Amadou Ba ban lecture par rapport à ce réaménagement bon lecture bi ma si am mooy déjà je m'attendais à ça parce que déjà que Idriss Seck moom annoncé woon na ne il est candidat xalaatoon naa ne kon yag yag dina am ay aménagement si Walum euh, gouvernement bi te du du yam fofu yaakaar naa aussi dina gëna a euh, yaatu sax ba dem peut-être si assemblée bi parce que amna ay député yo xamante buñ fa nekkee tey député euh, Idriss Seck mo dox li nga xam moy djégo yi te jàpp nané bi Idriss Seck waxé né officiellement qui sera candidat en 2024 jàppoon nané déjà que mok Macky Sall une divorce si walum politique pour cette année wala les ba 2024 jeex na et comme on dit en français euh, dans le poulailler si la poule euh, part elle doit partir avec ses poussins et là c'est tout à fait normal dama japp ne. Hmm. Idi mom bu normalement képp ko xamantene si yaa ngi si bañeelu Idi yaa ngi Idi mo xam wa réew mi c'était prévisible que nga nga dem déjà euh, ñi si gëna gis moy Yankoba. jatala bi nga xamante ne moom gisoon nañ que bi Idi commencé euh, wane ne moom du euh, du bokkate si kii ànd ak Macky Sall dem 2024 euh, gis na ni mu menacé woon Yankoba ba Yankoba demoon këram seeti ji ko kon jàpp na ne c'est tout à fait normal que ñoom ñu teg te day sax Yankoba waxoon na ko ne woon na ko man boo bëggee sax mën naa li nga xamante ne mooy démissionné joxe li nga xamante ne mooy ministère des sports bi ma yor loolu aussi li koy li koy findeel li koy gën a dëggal mooy Idi dafa pare pour dem. nek ji canada en 2024 te nañu wax aussi que wa réew aussi aussi ñu ci wa Benno Bokk yakar réew bokku ñu ci euh, coalition bobu wa réew dañu dañoo àndoon ak ki di Macky Sall euh, euh, ci li nga xamantene sous la bannière de Idriss manam Idi mom mo tok waxtaan ak Macky lam wax ak Macky ken fekku ko mu nek entre les quatre coins de mur pendant très longtemps en toute discrétion ken fekku ken yëgu ko ba ñu and kon wa man damay gis ndax déjà bu ma gisee wa Benno yi commencé génn di menacer Idi wala ñu menacer wa réew damay japp ne peut-être que c'est exagéré à mon avis parce que mm. waa réew ñu ñoo ñu ci quoi les seen ñu nekku ci mm. euh, que Benno di and bu baax wala Benno di tas wala Benno di effondre seen yoon nekku ci li ci am solo moy ñom ki ñu waxal moy Macky Sall té loolu Idi wax nako mm. Idi nee ñun ki ñu amal affaire moy Macky Sall wax leen ak Macky Sall léegi nak peut-être que pour euh, euh, tuuti sama commenter libre bi may am ci Abdoulaye Mboye moy li fi mu waxee ci wàllum Idi namu waxé que sénégalais ni ñuy ni ñuy jappé secret ak mom bi mu waxé waxé biit biir néegam mu xëy gis ko ci marché bi peut-être boobu mu wax noonu d'accord naa ko mais man dama jàpp ne beneen sens bi ma koy déggee beneen angle de compréhension bi ma koy dégg mooy Idy dafa bëggoon wax ne tout simplement que moom bi muy négocier ak euh, Macky Sall kenn fekku ko te mënu koo taal si li nga xamante ne mooy si mbedd mi te wulu si woon kenn pour wax ko ko parce que dafa am ay yu fi jàll ay président yoo xamante ne yàgg na koo wax di ko tënk mu génn fekk ko si mbedd mi kon bii paa bi muy négocier ak Macky Sall kenn fekku ko te ba léegi nii Mohamed amul benn analyste bu la mën a toog wala chroniqueur bu mën a toog si télé yi wala si plateau yi ne la idi lii la wax ak Macky Sall ñoom ñaar kase ñoo la mën a wax lan la ñu wax te beneen bi ma si gën a mën a leeral mooy Idi ne s'oppose pas à Macky Sall c'est-à-dire du ñu xiiroo du ñu ŋaayoo du ñu. du ñu noonu tàqalikoo mais ci jàmm quoi à léegi nag tàqalikoo boobu nag. ndax tàqalikoo boobu dafa am fu ñuy retrouver waat parce que tey si biir li nga xamante ne mooy autoroute à péage bi mën nañoo a yow mais après ñuy retrouver waat feneen. parce que tey. Macky Sall opposé woon na fi ak Idriss Seck en 2019 loolu nañu si bàyyi xel mais Idriss Seck en 2019 boobu moom moo toogoon. tout simplement euh, bañoon li nga xamante ne mooy euh, li Macky Sall gagné en 2019. Mm. te Idriss Seck boobu moo ñëwaat encore àndaat ak Macky saal donc nag Idi boo xamante ne il peut toujours comme ni muy duggee noonu la mën a génnaatee. te ni muy génnee noonu la mën a duggaatee ak li ñu wax ñoom ñaar léegi nag. li si am solo mooy euh, kii di ba Diattara ak kii di. le ministre Sall. pourquoi ñu génn parce que aussi. quel que soit Alpha Yankoba Diatta dafa toog fii wax sur le plan juridique sur le plan de la constitution si constitution bi Macky Sall am droit à un troisième mandat mais Macky Sall ba léegi Macky Sall ba léegi waxagul ne moom candidat wala du candidat donc cela veut dire quoi que nous aussi du ñu ànd ak politiquement peut-être que il est fini su Macky Sall xëy xëy ne man je suis pas candidat que fera euh, Yankoba Diatta que fera ki nga xamantene moy Ali Saleh la la na def donc ñom aussi duñu and ko xamantene waxo wa waxo waxoo waaw waxoo mën nga xëy suba né nekutuma candidat té ki leen formé politiquement mm. muy idriss Seck mom il est candidat donc ñom politiquement pour leur avenir politique pour le lendemain politique mm. ki gëna woot and ak mom moy ki nga xamantene moy idriss parce que mom il est candidat mo leen formé te seen parti nag aussi il rêve d'être d'être président donc ñom pour ñom ñu and c'est tout à fait normal que Macky Sall tant que waxagul kenn mënugul and ma ku ànd ak mom da nga and si ay yaakaar mais pour des calculs politiques ki wo déclarer officiellement que je suis candidat kooku moo gën a neex a àndal moo tax Yankoba Diattara dem préféré génn si gouvernement Macky pour ànd ki nga xamante ne tey bu nekkee tey Yankoba kooku moo ko defal mu Idriss merci beaucoup Bamba alors Ibrahima Pouy ginnaaw ba ñu la nuyoo yow itam bëgg nañu sa njàngat parce que tour de table la woon rek parce que mm. nouvelle bi euh, léegi la euh, euh, dab muy conseil économique